ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni bii yéen a ngi ñuy topp à travers Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di lay ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam ku nekk fa nga nekk fa lan lay fekk na la jàpp suñu juróomi baaram asalaamaaleykum xam ngeen nit ni ko Leewtoo TV di ko defee di leen toppal li nga xamante ne bii mooy actualité lamb tey nag ñu toog ak benn promoteur ñu koy wax euh, Modou Baye Fall borom Momo production ñu dëgmal le 10 le 17 décembre fële ci arène nationale mu war a dox ci diggante Talfa ak xale bi nga xamante ne bii mooy soq bu ndaw ñu fas yéene waxtaan ak moom ci waajtaayu événement bi fan na ci tollu Modou gannaaw ba nga nuyoo ak internet yi euh, ñu dugg ci biir waxtaan bi. waaw Mbaye Babacar ñu lay ziar di la nuyu di nuyu waa yëpp Leewtoo TV. Mm-hmm. micro di ziar di ziar euh, sa caméraman di nuyu sama waa village waa Njengom. di leen nuyu bu baax di nuyu Bawol Bawol yëpp képp kuy Bawol Bawol ñoo ngi lay nuyu di nuyu yàlla bu baax di nuyu sama papa di ko ñaanal wér di sama yaay di ko ñaanal suma taaw muy aas ba si bi nga xam mooy xale ñu ngi ñaanal jàmm di nuyu waa Xelcom automobile bi nga xam si maa jiite di leen ziar bu baax a baax di ziar suma ay soxna soxna Yaasin ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm soxna Xadi moom tamit ñoo ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax yaay Serigne Saliou di leen ziar ñëpp rek. Mm-hmm. jaajëf euh, Mor ñoo ñu fas yéene waxtaan ci événement bi ñu jëm la di sa décembre incha allah diggante Talfa ak Sokh bu ndaw di combat bu bëri coow di combat jànq fan nga toll ci waajtaay bi. waaw Babacar combat bu moom ñun ku ñu xam-xam ne ay amateur lañ comme ni ñu ko faral di wax ci interview yëpp rek euh, ay amateur lañu ba pare jaar si bëre nekk jeune amateur. góor a nekk suñu président. di ko nuyu bu baax di nuyu tamit Idaly Gningue mi nga xam ne moom moo ko créé woon moo njëkkoon nekk président bi nekk nit ku baax di suñu waay borom ñu ngi production ñu ngi xaar retouram ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw amateurs yi nañ ko. waaw namm nañ ko lool ñu ngi moom nit ku baax la vraiment et ku yéene ñëpp jàmm la des fois jàpp da lay woo day conseillé lépp ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax yàlla defal ko tawféex ba mën a ñëwaat ci làmb ji bu fekkee bëgg na ko ah ñu ngi ko si ñaanal bu baax si li mu nekk yàlla suñu borom taxawu ko si bu baax a baax a baax si baat si Abdou Karim moom la yaakaar wàccaay bi wàccaay bi nag moom ku xam sox bu ndaw xam ne dafa dugg parcel am lu mu fa def waa parcel di jooyte noppeeguñu ñu ñu gis ne Talfa moo ko bëgg a faj Talfa ki mu gënoon a bëgg sax nekkuloon kooku noonu sox moom ak kii ñoom moo waroon a taxaw Pokola moo waroon a taxaw ñu dem ba si biir mu am ay détails ñu gis ne moom ak soq sax boo xoolee mooy combat bi gën a neex parce que soq dafa dugg parcelle daan fi pëtiloo pëtiloo nekk doomu Modou Lo nekk champion bu mag combat bu bëri woon lool xam nga ci diggante waa Parcelles ak waa waa waa waa waa xam nga léegi nag combat bu fekkente ni dafa jàll yàlla may ko ci ndam mu war a ñëwaat dugaat Parcelles Talfa ko xam-xam ne musul musul dégg mu ñël. ñaari xale yu nekk ci ay dynamique victoire. waaw Talfa combat du def minute combat bi passé moo métti yàgg te ndaanaan la doon bëreel. mais bu arbitre bi jaasi pël combat mag jaasi pël. waaw combat bu métti loolu woon na la Talfa champion la et puis. booy bu yaru la booy bu cool la mais bu duggee si biir làmb nag moom day wane yëfu mbër xam nga sox bu ndaw tamit noonu mhm. du siggi xool nit te bu duggee si làmb day def yëfu mbër mu nekk combat bu neex a neex bi nga xamante ni amateur yi jàppoon na ne combat bu mënul taxaw te taxawaloon ko tamit yomboon na yombul mu ne ko si yomboon na yombul ci côté koom si côté staff yeeg yooyu noonu mais bi bi ko bi mu waree taxaw rek suñ borom dafa yombu la lépp mu taxaw si jàmm mu nekk làmb ju neex Euh, le set incha allah lan lan mën a xaar ak Momo production fële ci arène nationale. waaw le set Momo production mu ngi ñëw ak Ndeye Fatou Adama Jali ak hmm. Maodo Faye borom càmmiñ bi. sama yaay Maman Ndeye Fatou. Maman Ndeye Fatou incha allah moo war a ñëw ak Maodo Faye kenn du Maodo kenn ku xam Maodo xam ne avant moomu di fël moom moo daan toj mbapat yi. le gauze magique waaw le le gauze magique. Mm-hmm. nekk ndaanaan moom tamit démb jokkoo nañ ba am nañ accord am. Mm-hmm. maman Ndeye Fatou moo des tuuti rek. feeg 17h nii confirmé bu fekkente ni. kon kon kon mën nañoo xaar ambiance bu gëj am. arène nationale journée journée journée moomu production ku ko xam. mbër yi dañ des fois dañ lay woon naa la man sa journée laa bëgg a bëre. xam nga journée yi ñu tëgg yëpp boo si xool rek gis nga caat daaw dafa Youssou Ndour bu lébu meloon ambiance baak lépp gis nga Baye Mandiaye Ka Gourné ni stade bi meloon benn combat moo xawoon am tuuti rëq-rëq rek muy euh, mbaytin junior ak xeeru ngor mais combat boobu noonu la mënoon a demee parce que jàpp ko ba mu des ay fan stade Iba am nu mu demee mbër yi daan noonu woon côté Dakar bi léegi nag te ñoom dañu am ay moyens pour ñëw fii nii moo taxoon combat ba desee woon mel ni ma ko bëggee woon te terewut wax dëgg yàlla combat bu neex la woon loolu la deme mais bii nii incha allah rabi si la ñuy si la ñuy gisaat retour Momo production bu baax a baax a baax lépp luy ambiance moom dina fa am comme ni mu daan amee. kon mën nañoo xaar Momo production new look. Hmm. lu bees tax. waaw lu bees tax kay lu bees tax am na hmm. yoo xamante ni nag moom. Hmm. ak ay invité ay kilifa ay invité surprise yoo xamante ni dina fa dina fa dina fa dina fa kii. dina fa ñëw quoi. incha allah. Mm-hmm. wax nga ko sànq ñaari xale ya nga xamante ne bii am nañu gannaaw. Mm-hmm. dañuy mobiliser. Mm-hmm. dañuy andi mbooloo. te ku xam arène nationale xam ne. Euh, fi mu toll nii moom kese moo fi nekk ci bijou. bi ñu mën a tëggee làmb. côté côté sécurité. xam na ne ñaari xale yi wax naa la ko sànq dañuy drainer dañuy andi mbooloo mu bari. bàyyi nga xel ci côté côté kaaraange gi bu baax. waaw côté kaaraange bi li ñu si mën mooy ñun ñu wax ñu ñu tëgg. commandant Thion wax ko seeni dayoo wax ko ni ñu mel wax ko fi ñu bokk ak li leen di topp. Mhm. mun nañu temps élément mooy doy ñu ñu wax si ñu na ñu fay leen nangam ñu yëkkati xaalis bi jox ko. Mhm. sapeur fay leen nangam ñu yëkkati xaalis bi jox ko. Mhm. frais d'organisation CNG nangam la ñu yëkkati jox ko. kon yaakaar naa ñun loolu moo ñu si war. mais ñoo dem di compter ji ay policiers. mais li ñu bëgg dëgg dinañ ko ko wax moom mi nga xam si moom mooy dem uti ji sécurité bi. am naa yaakaar xam na ne xam na booy parce que combat boobu rek nekku si. ku xam Mbengue Mbor xam ne moom bu génnee daanaka caaroy jàmm gën yëmbal yëpp Mbengue Mbor benn Mbengue Mbor waaw ku xam safara tamit ci ambiance ci saf xorom ci lamb ju neex ñooy bëri combat spécial bi combat spécial bi drapeau euh, Habib Mbaw Mbaw automobile ñoo koy bëri beneen combat bi tamit R5 ko xam-xam ko ci mobilisation moom tamit jàmm gën lay jóge mu mujjee bëri yan bu diis daan yan bu diis andi woon fa mbooloo mu bëri te bii mooy raw boole ko booy siin bu rok énergie moom tamit mu nekk champion nekk ndaaraan jóge jóge si baaba baaba maal doomu mbër ba pare nekk nekk bokk si famille mbër waaw xam nga jegaan rek ku xam jegaan xam ne champion la dafa mel ni dafa mel ni wax nga ko sànq amateur nga te amateur bu tëggee lamb pour mu neex mhm. day yomb xale yi nga tëgg ñoom ñëpp am gannaaw macha allah mais des na franc mbër ku ko ku xam xam ne franc mbër bu génnee tamit parcelle yëpp ay génn topp ko franc mbër benn waaw sekk ndaanaan moom kenn dootu ko waxati mhm. Mm-hmm. mën a bëre mën a fecc mën a mm-hmm. xeex ba pare di ambiance mm-hmm. ba pare mbooloo mu bëri topp si ginnaawam bu ñu fa jógee tamit buubaa yëmbal mare trois combats yi mujjee bëri yëpp maa ko tëgg mu am si trois victoire moom tamit mbooloo mu bëree koy topp vraiment combat bi passé rek euh, arène nationale la fa taaru yëpp moo ko taaral jël ko jox ko bébé garga bébé garga bu école de lutte Balla Gaye garga si petit la jógee petit am si kawam ndam mu nekk tamit booy bu sérieux booy bu yaru booy bu mën a bëre booy bu jël prince bu bàyyi laay bu bu prince bu bàyyi ci xel xam nga prince moom daanaka si stade bi la dëkk. Mhm. moom dafay mobiliser moom moom tamit nekk waaw day génn rek dugg boole kook ñaa bu bàyyi laay ñaa bu laay tamit nekk nekk phénomène nekk koo xam te ni presque booy ñaa lay roy ci lépp nekk ndaaraan moom tamit su jegee tamit jëlaat euh, leer de leer de jox ko bébé rek rek bébé rek rek leer de moo ngi nekk bawol bébé euh, bébé rek rek moo ngi nekk écrit dóor bu ñu foofu tamit jëlaat njaag soo jox ko njaag ma euh, no sëy jàmbaar njaag soo sëy jàmbaar mu nekk tamit combat bu neex xam nga garçon bu booy ñaa ak baas njaago jëlaat euh, tafa muy muy doomu parcelle boole ko ak euh, faga de bu école de lutte Mor Fadam mu nekk combat yoo xam te ni ci kaw ba si suuf premier combat bi ñi bëree premier combat bi rek kii am na cinq combat kii am na six combat mu leer na ne kon journée boobu noonu journée bu satire la moo tax premier combat bi rek mën nañ bëre spécial doomu parcelle def na lu ne si làmb mbooloo bëree koy topp mais amuñu choix parce que ñin tëgg la moo tax il il faut ñu def il faut ñu jël lii xam nga bàyyi lii nii noonu la demee quoi man maa ngi Sénégal ne daanaka dama xawul mën a wax bu baax mais maa ngi yëgal Sénégal ni mu Modou Baye Fall moom production mooy woo ñëpp samedi incha allah rabbi képp ku koy bëggee képp ku ko yéene si làmb ñëw jàppale ko soutenir ko ñëw nekk si ginnaawam yàlla suñu borom kàttan mais mais mais combat yi nga fi wax nii yëpp. Hmm. Hmm. yëpp ay combat amateur lan hmm. moom moo kan moo nekk ci gannaawam dafa mel ni am na staff bu dëgër bu nekk ci gannaawam ba nga xamante ne bii dañ koy jàppale ci ci ci ci sélection combat yi. waaw non moomoo déggoo ma dama ne dama nekk jeune amateur. nekk fa ak président Goro Ndoye nekk fa ak Mor bu parcelle. xam nga ñoom Ilimane Diop. vraiment nekk ay nit ñu baax ñi nga la yéene jàmm. bu bu ma jegee foofu tamit. ñëw day ànd ak xaadim ànd ak sekk xaadim anta ndaamali da ngay génn sama gaara dugg këram këram a ngi nii ndaamali waaw en face moom non moom borom may ñoo yendandoo muur frontière tamit mhm. fii la dëkk ci biir kër gi mhm. moom ak xaadim dëkk fi mhm. ak saa Touba xam nga daanaka kon man ay ay nitu làmb laay yeew heure may yeewoo ñoom laay jàkkaar lool su ma jógee sama kër ñëw ñoom laay yendul ba ngoon jot su ma liggéeyulee ñoom laay nekkal kon ñoo ñoonoon rek làmb la saa Touba rek moom maara la mais moom rek làmb la moom rek làmb la moom rek day toog naa la combat diw ak diw ak bu neex la combat diw ak diw combat bu neex la buñ jëlee xaar bi Anta Seck boole ko si Modou Anta tamit boole ko si mhm. jël waa jeune amateur boole leen mhm. lu ñu a a mu nekk suñu wet loolu am na lu a nekk mu jàppale si côté yi côté cachet mhm. lu ñu a def lu loo xam dafay ëpp buñ ci waxtaanee ak moom rek lépp dafay sotti quoi euh, ñu bëggoon ñëw ci jafe-jafe ngeen di jànkonteel yéen promoteurs yi fële ci arène nationale mu mel ni seen diggante ak revendeurs yi am na am day xaw a metti parfois non revendeur yi euh, bërki démb dimanche rek jamaïcain moo ngi koy wax ak ñoom. xeer la jël teg. mu ne revendeur bu ma jàpp damay toj boppam. ëpp naa def ma ne ko man maa ngi kuur sama oto. kuur kuur laa yore dañuy dëbb ba mu mokk romb parce que yéen i toroxal nit la. waaw imagine toi nit ki jël 10 millions wala 15 millions jël ko investir ko si làmb. Mhm. dem jëndi ay billets sécuriser ko. dem si fay. presque ay deux cent ou deux cent cinquante mille nga defaral ko ay ay machine teg ko yow nga nekk si biir stade bi. billet bu rot wala amateur bu juum dugg ak billet nga dugg récupéré waat billet yi génnaat ci biti ñëw jaayaat ko jël ko dugal ko sa poos dem dunde ko njaw ak sa njaboot wala nga dem ak moom sa cagaja na ma yàlla bal xam nga loolu noonu lu bon lu ñaaw la mu ngi mel ni nga tiim nit mhm. jàpp ko mu taxaw ngay jàpp yaram bi di ko lekk mhm. metti na waaw ki jël 10 millions def ko si làmb mhm. yow xalaatu noo ko mën a jàppalee kii li muy liggéey mën a yokk ngay xalaat yow nooy def pour sàcc ko Mm-hmm. ñoom nan xoolaat li ñuy liggéey bu baax te xamante ni ñun dañuy liggéey dañoo yor suñu métier di liggéey mm-hmm. bu ñu toogoon fi ñu toog yàlla moom ñuy suturaal fu ñu mën di dem moo ñuy suturaal fu nekk ñoo ngi fay dugg mm-hmm. grâce à suñu métier mais du làmb kon bu demee bay jël suñu ñaq wala suñu dool di ko dugal si làmb ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp parce que liggéey yëpp mun naa am mais liggéey sàcc moo baaxul te yaakaar naa revendeur moom lu yées la si biir stade bi ni ko gars yi di defee mais turu revendeur bu nekkoon noonu la demee. Mm. du nekk lu garaaw. Mm. revendeur mooy nga ñëw ci promoteur bi ne ko ah bloc bi ñaata la mënul 200000 mu jaay ma mu jaay jaay ko ko loolu garaaw waaw mm-hmm. mais ci biir stade bi la dugg di lijjanti billet yi. Mm-hmm. wala ñu jël benn billet xool nan ko mën a piraté pour defar ci ay billets. Mm-hmm. nan xoolaat bu baax mais loolu yéen jëlu leen ci yenn pexe. non pexe yoo teg rek ñoom teg nañ pexe yoneen. ah bon. pexe yoo teg rek jox mais combat samedi bi bii di ñëw. Uh-huh. bu soobee suñu borom. képp kuy revender doo am dara looy def. cours ngay parce que non bu dul cours sax parce que dama jël ay matuwaay. Uh-huh. su may biyee xam naa fi ma koy def bu ma ko récupéré benn billet du manqué te bu làmb jeexee. Uh-huh. billet bu dugg si stade bi dinañ ko génn waat dinañ numériser yëpp. lépp luy béy Modou Baye Fall dina ko xam billet bu ci bokku nag. bu boobaa nag dinañ taxaw wax ak ki defar billet yi ne ko billet fan la jógee. parce que am na yu bëri yu daw. Mhm. Henri moom tamit nekk nit ku baax gaa yaa ngi wax nag mais man xamee lu ma ko dara lu ñàkk fulla wala lu ñàkk fayda. mais na xoolaat booy mi tamit bu baax a baax a baax parce que wax ji bëri na. Mhm. mais man musuma woon ñàkk fulla musuma woon ñàkk fayda mooy ki defar ticket yi. nit mhm. ku baax la vraiment. mais xaw ma ko ci caaxaan. mais na xoolaat bu baax a baax a baax baax parce que li gaa yi di wax bëri na trop trop trop trop. Uh-huh. bu ñu ñëwaatee ci le 17 bi euh, lan nga ñu mën a lan nga ñu mën a fàttali. Hmm. ci côté ambiance ak ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, côté euh, culture aada ak cosaan. Hmm. bala ngaa tàggatoo. waa mais aada ak cosaan moom. ñun ku ñu xam-xam ne ay séeréer yu gàlle lañ ay séeréer mm. bool bool lañ dégguñu dara mm. mais dinañ indi li nga xam ne mooy mooy suñu aadama moo tax nga andi nday faatu aadama nday faatu aadama jële le 15 août ñëwoon na arène nationale mm-hmm. seq ko mbooy ma jaaga mu nekkoon lu neex mm-hmm. dina ñëwaat incha allah seq ak Maodo Faye bu soobee suñu borom mm-hmm. muy ambiance am na yeneen surprise yi nga xamante ni tamit am na ay artistes yu mag yu fa war a def playback incha allah rabbi waaw arène national moom. samedi moom dinañ xam ne am na gan. bi suñu borom. Mhm. kàddu gu mujj gi. waaw kàddu mujj yi di sant ñëpp rek di sant staff moomu production bi xam nga di jël nuyoo bi. di ko teg mu am na am na ñoo ko dara jaale. waaw ñu ma ko dara jaale drapeau soq bu ndaw Talfa ñu ngi ko tuddee sëñ Bakay Jong mu nekk suñu frère suñu rak suñu goro. Mhm. xam nga di max suñu ñaareel bi soxna. Mhm. nekk nit ku baax. moom moom moom lañ dara jaale combat bu mag bi beneen bi si topp ñu jox ko Mbaw automobile di abi Mbaw nekk jeune bi nga xam ne ouvrier la jàmbaar la ñafekat la mooy waral ñu jox ko ko combat bi si topp ñu jox ko Modou Ngom suma tooma suma turandoo nekk mécanicien poids lourd nekk ku bëgg làmb vraiment ñu jara ñu dara jaale ko combat boobu noonu mhm. yeneen si des nag ci xaar amateur ñoom ñëpp vraiment ñu ñëw toog seetaan di santaat bu baax di leen sant yéen nii di sant presse bi yëpp mm-hmm. ci internet yëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla defal leen jàmm di woowaat suma mbokk yëpp rek ñu ñëw jàppale ñu incha allah rabi si mm-hmm. liggéey bi yàlla suñu borom kàttanal ñu dooleel ñu ba li ñu yéene si làmb ñu matale ko incha allah rabi jaajëf. jaajëf euh, Modou Baye Fall kooku mooy borom Momo production di leen jox rendez vous incha allah le 17. décembre la ci arène nationale diggante soq bu ndaw ak talfa di combat ba nga xamante ne bii combat jànq la ñaari xale yu am fulla am fayda am gannaaw mën a bëre buñ jógee mbooloo mu bëri di leen topp incha allah sama gars yi ku bëgg gis bëre bëgg gis caxabal bëgg gis nooju bëgg gis jàllawle bëgg gis door mu daanu wala yëkkate ba ca kaw tóor ci suuf incha allah rendez-vous le 17 décembre ak moom moo production fële ci arène nationale jaajëf Xaadim Bamba séeri kenn papay Ousin sama caméraman bi nee naa ko yaa ci mën kenn du yow borom yoof alab lébu kontaan naa ci yow yal na yàlla dolli jàmm incha allah jaageen jëf beneen yoon ak beneen expert ci wàllu làmb